accessoire yi nga xam ne day nekk ci wàññ nekk na loo xam ni dafay dox bu baax ci bi nga xam ne ñu ngi waajal tabaski ay sénégalais yu bari nag rawatina marchand ambulant yi def nañ ko mu nekk seenu business ci période bi ñu nekk. paaka yi de moom chaque année lañ koy defee rek bu desee ñett la ñuy démarrer dundee yaakaar góorgóorlu rek comme moom li lañ fi am liggéey ba pour am rek waaw ñu ngi sant yàlla wax dëgg fa yàlla mu ngi ci mu ngi faj suñu la ay paaka ay jaas yi ak yeneen i accessoire ñu daal di ko exposé ci mbeddu Dakar yi di xaarandi ñi nga xam ne ñoo di clients yi. waaw ah, paaka la ñuy jaay jaas yi ak lépp loo xam ne dañ koy soxla rek ci kër yi dañ koy jaay ci dañ koy jaay ci njëgu accessoire yi nag mu ngi dox ci diggante téeméer ba juróomi téeméer ci suñuy koppar mu ngi tënku rek ci li nga xam ne moo nekk ci poche client bi. paaka yi am na 1500 am na 1000 am na sax yu 500 yooyu yëpp am na fi jaasi 2000 2500. jaaykatu furno yi ak grillage yi ñoom itam desuñu ginnaaw benn yoon. indi leen ay fourneau yoo xam ne daa ànd ak euh, four ak ay euh, fourneau yu ànd ak lakkukaay ak ay brochette paaka grillage jaasi. bagages yi nga xam daal dinañ ko soxla ci kër gi yooyu lañ leen indil fii. fi mu nekk nii nag ab affluence bu néew la ñu nemmeeku ci boobu boobule business waaye fii ak ñu yegg ci fête bi jaaykati ñoom ñu ngi dundee yaakaar. daana gën a yëngu nag mais xam nga bis bi des na. suba ginnaaw suba. fekk gars yi jënd xar yeeg yooyu ba pare. ci la ñu doon dooratal paaka yeeg grillage yeeg yooyu. mais nag ñoo ngi sant yàlla rek mi ngi dem ndànk-ndànk vraiment. chaque année moom noonu lay demee ndànk-ndànk incha am nañu yaakaar ne d'ici tabaski affaire dina gën a dox daal. njaayum accessoire yi nga xam ne day dem ci wàññ bokk na ci métier yu ñu nemmeeku ci période bi ñuy waajal tabaski nekk na ab occasion bu baax ci marchand ambulant yi ñu mën a feesal seeni poche